Euh, sunu gan euh, salaamaaleykum. maaleykum salaam. ñu fàttali ni euh, gan gi tey mu ngi wuyoo ci tuuru Moustapha Diouf mooy président association des jeunes rapatriés de Thiaroye-sur-Mer maanaam ñu dëkkee Thiaroye géej doon jéem a tukki jaar ci gaal yi ni mu xewee fan yi ñu dëpp leen ci ay jamono bala ñoo sori ci waxtaan bi yow nettali ñu sa sa jos nu mu demee wan at la woon ak nu mu demee woon. kañ nga euh, yegg ak kañ lañ la delloosi ci senegal Sénégal. asalaamaaleykum waa TFM maa ngi nuyu Sénégal di nuyu Thiaroye sur Mer gi ma jóge ci gën a ki gën a mag ak ba ci ki gën a ndaw bon man maa ngi tudd Moustapha Diouf di président association des jeunes rapatriés bu Thiaroye sur Mer mun naa wax ne immigration clandestine ñu bari xam nañ ma ci parce que dama bokkoon. ci en 2006 ñi nga xamante ne ni ñoo jëloon gaal yi dem fële ci Îles yi ci jamono boobu bi nga xamante ne dem nañ ba yegg ci lañ accord bi am muy état du Sénégal ci jamono boobu parce que ministre de l'intérieur bi moo nekkoon Ousmane Ngom euh, ministre des Sénégalais de l'extérieur bi nekkoon affaire étrangères bi nekkoon Cheikh Tidiane Gadio ci lañ def accord ñu signé que ñu andi ñu fii. xam nga daal di ñuy rapatrier bi ñu ñëwee ci nan toog xalaat ci jafe-jafe yi nga xam ne moo am ci géej gi. ba ngeen demee euh, nu ngeen yeggee lu ñu leen def euh, ñaata fan ngeen fa def ñaata weer wala ñaata semaine bañ delloo si leen. waaw ci jamono boobu xam nga euh, immigration clandestine boo koy def boo yeggee foofu quarante cinq jours nan war a def nga war a def pour ñu libérer la nga dem. mais ak ak ak accord bi nga xamante ne Sénégal moom la signé woon ak état espagnol c'est pourquoi ñu refoulé ñu ñii def nañ fa ay dix jours ñii def nañ fa vingt jours ñii def nañ fa trente jours ñii def nañ fa quarante cinq jours pour refoulement yi am xam nga du caagi nag ñoom ak ñun ñun ñi ak ñeneen ña fa nekkoon ñëpp ñoo bëggoon a ñëw fii ci Sénégal c'est-à-dire Sénégal moo signé woon accord pour andi ñu mmh rapatrier leen jox leen charter waaw def ñu hmm. ci avion yi andi ñu fi. par force am ñu wàccee Dakar am ñu wàccee Ndar. am ñu wàcc Dakar am wàcce Ndar. xam nga bi ñu ñëwee tam ñu def promesse yu bari yu bëree bëree bëri bëri xam nga promesse yu bari xam nga lu ne jaar na fi même une délégation de l'Union européenne ñëw na en 2009 fële ci caara yu géej ci seet si ma def promesse ba ne dañuy wutal sax bateau de pêche xam nga mais yooyu yëpp xam nga. mais mais bu ngeen di ci jamono jooju ñaataat nga amoon. bon si jamono boobu maa ngi amoon 38 ans. 38 ans. Euh, xawoon nga magal tuuti quand même. ci mm. ku war a jël gaal dem euh, dem Espagne. Euh, lu taxoo lu tax ci at mooma ak at ya nga amoon 38 ans nga jël dogal soobu ci géej gi risqué sa bakkan pour ne da ngay dem Espagne. waaw xam nga ci jamono boobu li taxoon ma jël dogal boobu xam nga man dama nekk ci famille boo xamante ne ni amuñu doole. xam nga man nag sama morom yu bëri parce que dinaa ci ñëw ci kanam parce que ñoom jaar ji leen mat tey jii moom ma mattoon en 2006 moo tax du ma leen blâmer bi nga xamante ne nekk na ak samay waajur nekk ak sama jabar xam nga daal di xalaat parce que lu ne dugg naa ci dañuy wax ne xale yi amuñu métier am nañ métier kañ parce que jamono boobu def naa maçonnerie xam nga nekk naa mareyeur xam nga di liggéey ci jën. xam nga di ci am sama teraanga mu jékki-jékki géej gi na ka moj mënatuma yar sama njaboot mënatuma fay sama njàngum doom mënatuma joxe dépasse mënatuma joxe dara xam nga benn jour laa toog dem naa ni ataay sama benn xarit ma di ko nuyu au passage mu Issa Gueye mu ngi fële ci Espagne ma vers 18 heures ma ñëw ba foofu ma ne pour pourquoi pas man ma dem ci gaal parce que toog bi may toog ci Sénégal xam nga samay waajur amuñu kantan xam nga pour jàppale ma wala pour dimbali ma wala bokkuma ci famille boo xamante ne ni war nañ ma mën a jàppale kon war na maa mën a dem Espagne daal di liggéey foofu teral samay mbokk teral samay jabar teral samay doom xam nga faj samay soxla ba nga xam ne duma ma tàllal kenn loxo parce que ñun ay libu nunu loolu moo waral mu jël gaal gi pour ne damay dem fële ci Espagne îles Canaries dem bi nu mu demee woon gaal geeg euh, yoon wi ñaata fan ngeen def ci yoon wi ak euh, ndax amoon na jafe-jafe nu mu demee woon. waaw xam nga yoon wi îles Canaries Dakar ku ne xam na ne neexul parce que entre îles Canaries dakaar ku ne xam na ne quatre mille neuf cent soixante dix virgule cinq kilomètres la gaal yi ñu ngi koy daw quarante sept cinq jours cinq jours nan koy daw pour arriver ci île bi xam nga yoon wu jafe la nag mais dafa am période période boo xam ne ci la gaal yi war a dem mooy période bii xam nga parce que jafe-jafe yi ci kanam la léegi dinaa ci wax ci kanam. parce que lan moo tax période bii la gars yi di gën a taamu lu ko waral. non gis nga période bii lu tax parce que bu nawet jotee bu ndox mi dalee ci géej gu mag gi day tëdd ci suuf. bu dee géej gi nawet xam nga moom dafay jóg xam nga période bii ñu jëm nag ci kanam mois de janvier février mars géej gu mag gi dafay commencé waat di jóg xam nga gaal yu bari dañuy des daanañu daanu ci ndox mi ci la xale yi di des ci ndox mi ñaanuma ko yàlla mais ci neen jëm foog état anticiper parce que ñun xam nan ka xam nañ ne lii ñëw ci kanam mooy lii piir dañuy wax rek gis nga bu ñu anticiper wul Sénégal dina wax àdduna dina wax parce que li nar a des ci ndox mi moo ëpp parce que bu géej gi bu jógee ay vague yu vingt mètres ñoo ciy nekk ñun xam nañ ci jaar nañ ko gis nañ ko ñun duñ wax dégg nañ wala gis nañ ci télé bi ñu doon cee teg suñu bët ak jaxaran jaaree géej ñàkk ci jamono boobu entre 2006 2007 2008 380 personnes ay jeunes yoo xamante ne ku ci nekk 26 ans nga am 27 ans bay ay ndaw bay ay doom bay ay jabar bàyyi lépp te terewul en 2006 ba 2019 bi xale yi ñu ngi continuer di dee fii ci Maroc di réer ci ndox mi. dañoo waxul nag xam nga parce que lii du lu ñu bett xamoon nan ka yàgg nañ def alerte sur toutes les médias du monde national international dañu dégluwul dégguñu fi ñuy waxe parce que suñu kàddu jógul gis nga tey jii boo gisee ñii nga xamante ne ñoo nekk ci dëkk bi di wax ne ci immigration nañu liggéey man duma def politique mais citoyen sénégalais la kenn ku ci nekk yaa ngi jëm baaraam tuuma état du Sénégal am na ci responsabilité da xëy na mais ñoom tamit am nañ ci responsabilité les ONG parce que yàgg nañ dégg ñoom ñoom ñu ngi ñu ngi may dégg kenn ku ci ne ñi ciy wax ci télé yeeg rajo yi yëpp depuis 2006 ku ci xamul Moustapha Diouf amul président association des jeunes rapatriés bu Thiaroye-sur-Mer ñu yàgg dégg may alerté déggam li may kaase ñu ngi may dégg dégg li may wax. mais nanguwuñu ma dégg nanguwuñu ma jàppale nanguwuñu ma maanaam accompagner kon du ñu yëg si fii parce que yàgg naa leen wax ne immigration clandestine en 2010 fii ci forum social mondial ma ne leen dafay jógaat mais gëmuñu ma man lébu laa caari géej laa dëkk fa laa juddoo fa sama njaboot na xam nga ma dégg tamit ñoom tamit ci seen bopp ñuy wax ne du lébu yi gis naa ci ñoom ñenn ñoo xam ne ñuy wax ne du lébu yi waaw ñëpp du ñuy lébu mais gaal goo xamante ne 4970 virgule cinq kilomètres di daw xaaju guddi kooku ab sàmmkat du ko dawal kooku du maanaam ab baykat moo koy dawal gaal dina toll foo xam ne fi deux heures du matin trois heures du matin ci biir géej géej gu mag gi ci biir géej nga daw trois cent kilomètres wëndeelu jëm île di Canaries kooku mool kànki moo koy yóbbu ay mool kanki ñoo koy dawal ñooy taxaw ci kaw baas bi di guider gaal gi di wax ne fii la jëm parce que bu boobaa ñi nga xamante ne mënuñu génn dañuy tëdd ñooñu seen paas nañ yor dañuy ñëw ànd ak ñun ñu yóbbale ndax yow ànd nga ci gune yi li ñuy nemmeekuwaat tey jii mbir mi wule waat ñaay euh, ñuy ñàkk seen ba euh, ñu seen gaal di tàkk yooyu lépp ngir dem ndax loolu ànduma ci ànduma ci te du ma ci mas a ànd malgré xale yi sonn nañ du ma ci mas a ànd te du ma ci ànd jamais parce que loolu moo waral association bi ñu tekk pour lutter contre l'immigration clandestine parce que ñun la ñu gisoon nan bi ñuy bañ mu noonu nan doon bañ mu répété wu c'est pourquoi ñu daal di anticiper andi ay formation ñu nag waruma leen tudd sax Caritas ñun loolu moo tax ñu anticiper ànd ak ki nga xamante ne moom mooy GFA Consulting loolu moo waral ñu anticiper ci formation lay wax ba tey ci couture ci transformation halieutique ci nun koy waxee ci plomberie ci électricité ci lépp pour xale yi am métier tey boo demee ñaata xale la AGIRAP daal di former mais amuñu suivi amuñu suivi kon dafa jaadu tey jii bu ñuy wax ne ñun amuñu formation wala xëy ñu ci bari dëgg la nag ñu ci bari amuñu formation mais li weer moom mooy ñu anticiper daal di leen forme parce que ay xale na ay sénégalais. mais li li mujjee xew ni dañ cee tudd lu bari ay goney nappkat yu ni euh, wala ñu ni xam ñu leen di waxal xëy na léeg-léeg xëy na tam ñoom ñoo koy wax ne géej gi fi ñu toll nii dafa euh, si seen kàllaama nu ngeen ko waxee kaaya euh, mbaa amul jën daal. amul jën amul jën est-ce que loolu aw lay la est-ce que dëgg la ni géej gi mel na melokaan boo xam ni tax na goney nappkat yi ba fi napp bi jël gaal wutali Espagne. waaw xam nga tamit xam nga mooy li may wax chaque jour ñun ay lébu nan ñun géej moo ñuy dundal ñun ci géej nan ñu njënte ñun géej ci xam nga moom moo yor suñu àdduna moo yor suñu lépp xam nga bu jëkkoon da ngay daw cinq kilomètres fii boo taxawee fii sànq bi ma taxawee ci étage kii ci kaw faar bi dan daan taxaw di fi taxaw di fi gët xam nga ay deux mille quatre deux mille cinq yooyu ngay taxaw fii di gët di jàpp ay ngóom loolu libu yi xam nañ li may wax wala ngay dem di fanaani taxaw fii yéeg ci kaw banc bi fii ci kaw da ngay daw ci këll gi teg say mbaal xam nga boo ñëwee xam nga dangay jàpp jëy bu ñuul xam nga di jàpp xam nga maanaam tàllaar yi da ngay yeb ba fees heure bii ngay teer yarax tefesu yarax xam nga daal di am sa xaalis dem dundal sa njaboot def sa yëpp mais accord de pêche yi moo ñu sonal bato yi nga xamante ne ne ñoom dañoo nekk ci géej gi ñu signé leen ay accord pêche ñu ñuy bëgg ray tey da ngay dem ci biir géej fekk leen fa ñoom ñu fay seeni làmp guddi gi di napp napp moo xam ne may jaarul yoon ñenn ñi yor ay balisa di ko sànni balisa yi bu ñu dawee mën nañu dugg Guinée Bissau wala ñu dugg Mauritanie balisa bu ci rëcc di dem dafay yóbbale ay centaine de tonnes ciw jën dikk ko yóbbuwaale ci dëkk yooyu. luy balisa. balisa genre mbaal la boo xamante ne ni ñoom seen i bu buñ ko sànnee jën wi da koy topp maanaam dafay xeeñ muy xëcc jën wi ci biir géej bu ko xëccee ay ton ay tonnes moo koy xëcc bu ko defee ñoom bu ñu sànnee seen mbaal yi bu buñ ko mbaalee mën nañu yëpp ay mille cinq cent tonnes mu am ay bato yoo xamante ne ni ñu ngi ci kaw yi taxaw ñoom ci foofu na ñuy jàppee jën wi am bato yoo xam ne industrie di ko di ko liggéey bato yooyu ñoo ñu sonal ba tey jii ñun mënatuñu gis suñu bopp ci géej gi. am na ay ay ay ay mareyeurs yu wax nii bu nawet bi tollee fii itam euh, at mu jot euh, jën day manqué est-ce que nappum bateau yi rek mën naa doon aw lay ci ne moo tax jën amul. gis nga ñun dañoo juddu ci géej màgg ci géej mareyeurs yooyu ñuy wax ñu ci ëpp ñoom boo xoolee du ñuy lébu. parce que ñun ñooy nappi jin wi ci géej gi. sëñ bi xanaa nag euh, li buy rek amuñu xam-xamu napp. non xam nga tey jii ñun boo ñu waxee càmba gi nga xamante ne mooy ci àll bi ñun <laughs> xamuñu nag ñun xamuñuy nag de xamuñuy nag xamuñu la nga xamante ne mooy gerte di ko bay maanaam ay loolu léegi xam nga yooyu ñuy wax noonu ñun xamuñu la ñun géej nan xam ci nañuy napp ci ni ñuy dund. nan jàppale mool yi mool yi dañoo sonn gis nga période bi ñuy wax repos biologique bi xale lébu yi ci boppam mool yi dañoo dem ba amatuñ loo xamante ne nii moom nañ war a maanaam dundale seen i njaboot loolu pour nga xam que il faut que nga ñëw à la base da ngay ñëw ci base bi nga xool ñoom ni ñuy dundee ñoom géej nañu am nan ñu sambal suñu géej bu ñu sàmbalee suñu géej wàññi accords yi néew ma bu ñu signé accord xam nañ li tax ñuy signé accord ñoom bu ñu bàyyeeg seen suñuy accord bu soobee suñu borom Europe dootuñu gis bu boobaa dinañ jàpp jay dinañ jàpp dina dinañ jàpp mbara dinañ jàpp sëdd mais bu fekkente ne ni ñun li ñu war a dundee ñun ñoom lekk nañ ko ba pare jàpp nañ ko ba pare daal di koy yóbbu Europe ba pare nenu nag bu leen ñëw ñëw Europe Sénégal loolu bu boobaa dafay doy waar waxuñu bu leen ñëw mais na jaar yoon ñëw boo xam ne bu jaar yoon la mais pas ñëw boo xamante ne teguwul ci yoon jàmbaar gis nga ñëw bu jaar yoon du ñun baadoole yi ñoo koy am gis nga boo demee ci ambassade ñaan visa kenn du la may boo fa demee ñaan visa da ngay joxe sa xaalis ba pare kenn du la may ñaata yoon laa dem en tant que président daal di def. Euh, mais euh, ñaan visa dafa am ci lu mu tënku itam day am lay bu dagan. waaye da ngay jaar dangay jaar toutes les voies normales toutes les voies da ngay invitation. am xam nga mënoo xëy rek ne damay dem Europe dem déposer visa ñu may la faaw ñu ñu xam loo fay wut. ak ba xam am nga këyit yu la fa mën a yóbbu ak xam-xam ak qualification métier am du noonoom effectivement xam nga tey jii bu fekkente ne dama ñëw fii ci TFM dama fi ñëw en tant que président de la euh, des jeunes rapatriés de Thiaroye-sur-Mer bokkoon ci ñi defoon trajet bi ñëw fii ngeen war ma déglu pour ma waxtaan ak askanu Sénégal ku ne xam na ne kuy dem di ñaani visa da ngay am lépp euh, maanaam li nga xamante ne mooy le dossier complet ñoom gis nga boo complet woon lépp duñ la may. ndax lan dañ lay refuser dan maanaam daf leen di neex ñoom dañuy choisir ñi ñuy may ak ñun dul may. def leen di neex da ngay déposer am visa am nu ñu koy waxati invitation am euh, nu ñu koy waxati hébergement hôtel nga am toutes les kii nécessaires nga dem ñu refuser la na la toogal duñ la may na la bu la neexee defal recours. man gis naa ko mais est-ce que est-ce que ak loolu itam euh, ginnaaw yéen seen association bi nangeen ko taxawal pour ñaax xale yi ñu bañ a jël gaal dem bu fekkee noonu la demee ci ambassade yi. ñu jàpp ni tam dëkk bi daa dëgër ci ñoom est-ce que seen sensibilisation bu ñaax googu dana mën a am résultat. effectivement dina am résultat parce que tey ji boo xoolee bi ñuy commencé association bi trois cent quatre trois cent quarante trois membres nañu woon tey association boo xoolee six cent et quelques personnes la xam nga te xale yi dégg nañ li ñuy wax message bi yàgg nañ ko jaale bàyyi leen géej gi bàyyi leen yoonu libi maa fi jëkk taxaw fii wax ne xale yi ñu ngi leen jaay ci libi man du ma mas a ànd ci loolu wala ma di leen accompagner kon du ma taxaw di wax xale yi ñu jël gaal yi bu ma sañoon tey dañ koy jël parce que li ñuy deewee métti na ma neexuma dama ci mënul dara man je pense que tey jii kenn ku ci nekk ñun ñëpp muy famille yi muy xale yi muy autorité yi muy ñëpp xam nga responsabilité dafa partagé wu xale yi nan bàyyi géej gi géej gi du yoon dëggalem Sénégal xam nga jafe-jafe yi métti na mais nan seet yeneen solution yu ñuy teg pour xale yi mën a jàpp ci loolu wala ñu am formation mën a dimbali seen bopp mais yoon wii ma gis ci géej gi bu ñu demee mois de janvier février ba nga xamante ne ne géej gi mu ngi uppee fële ci Pikine di wàcc caaray géej xale bu ci dugg ci géej gi boo demee deux cent kilomètres di nga dee te bala ñuy yegg foofu dañu war a toog sur la table ñu waxtaan jël seet yan solution nañuy teg c'est pourquoi tey jii Agirap justement lan mooy solution pour yéen lan ngeen yaakaar daal moo mën a saafara mbir mi ba gune yi toog fii doot ñu jël ci gaal ngir dem euh, tugal bu ñuy décider ñuy décider ku ne xam ne ne du ma ne defuñu dara Union européenne ay milliards la ci def ci immigration ku ne xam ne ne tey ji xëy na di du Sénégal def na ci ay milliards parce que du ma taxaw naan defuñ ci dara mais milliards yooyu nga xam ne Union européenne moom la def ci immigration clandestine fan la jaar kan lañ ko jox am nay justification am nay justification ñun gisuñu dara du dara lu ñu gis ci immigration clandestine. maanaam dañu war a càmbar xaalis boobu ñu ci dugal. ñu xam xaalis bi dugg xaalis boobu ñu ci dugal fan la jaar ak ko jël ak kun ko jox. nan ko càmbar ba pare nag ñu toog sur le waxtaan bu ñuy waxtaan ñu impliqué ne ci ñun les associations mais ñoom ñooy waxtaan ci seen biir kenn mësu ci jël gaal seeni i doom duñ jël gaal xamuñu géej gi lu ci ne xamuñu fu île kanari ne koo ci dugal ci gaal tey ñetti fan mu ngeer dee ci ndox mi. ba pare nag di ñu bëgg rëy ak seen costume taxaw ci télé yi rojo yi financement bu jënne ñu jël ko ba pare accaparé ko téye ka ñooñu ñenn la ñuy def loolu. mais léegi gars yi gars yi boobu ba léegi yaa ngi dégg fi ay gars yoo xamante ne ñu taxaw fii ne ñoom ku ci nekk nga taxaw daal di ne euh, euh, ñiy dem ci gaal yi du ñuy lébu. te ñoom ñoo ma formé ñoo ñuy wax loolu ñoo ma formé en deux mille dix ñoo ma yóbbu ci forum social mondial bi. am na ay ajoor ajoor yu loru ci yëf yi itam. déggoo li ma la wax ajoor yooyu ñoom ñooy ñëw ak seen xaalis fekk suñu. mais bu ñu demee ci géej gi ba nga xam ne dañoo war a yóbbu gaal gi naan ay fonde taxaw di naan ataaya ak yooyu ñoom dañuy tëdd ci biir baas bi ci biir baas bi ne ñuy tëdd duñu jóg ñooñu buñ demee ñoom la espagnol yi jàpp di leen téye ñun li ma lay wax nii li ma lay wax nii ñun dañoo xam li ñuy wax bu baax gis nga association bi ñu ci nekk muy tey ji ñoom kii ci sama kanam Khalil Ndiaye xam na li may wax magam bu mu bokkal ndey ak baay Yoro Ndiaye ci la des tey jii boo demee Modou jóob dafa teg fukki nit ak benn ci tànk bi ñaanal leen xale yi di ko wax na ko boo demee waxal sama yaay ne ko rêve bi ma amoon ci moom mooy tabaxal ko kër dewu woon pour xaru ji yaa ngi dégg jibi ndaw tey jii boo xoolee Bamdoy gaal gi ñu duggoon cent vingt cinq personnes ñoo ci nekk cent yi dee ñoom vingt cinq yi ñoo ñoo ci des bi ñu ñëwee benn financement amuñ ko boolewuñ leen ci benn programme tey jii Bamdoy chef mécanicien la di former ay xale teg ci ci tefe su caara yi boo demee tey jii moom jàppale wuñu ko ci dara boolewuñu ko ci dara xam nga yéen tamit loolu ngeen xaalis boobu ngeen jël demee ko di fay ay nit ak yooyu pour ñu yóbbu leen bu ngeen toogoon fi liggéey mu jut dara waaye da ngeen di koy tayle seen avenir yéen tam non xam nga tamit nit ki Sénégal ñëpp bugg dem du ma ne ñëpp mais majeure partie bi xale yi dañu bugg dem Europe parce que sa waay nan waxante dëgg nag yàllaa ngi fi yëpp waaye tey ji Europe yamul ak Afrique de dëgg la nag nit ki fu ko yàlla tudd réussir réussir moo gën a neex waaye moo gën a neex mm. bokkul sax foo boo feebaree dangay ngay faju doo fay dara <laughs> barke Dembo Ndiaye gis naa sama benn booy boo xam ne du ma tudd trop bu defoon ñetti fan fii ci senegal day dee di may wax nii ñi ko jigéen dëgg ñu ngi may dégg ñetti fan day dee bi mu duggee Maroc xam nga daal di yéeg ci gaal daal di wàcc Espagne bi mu demee bi ko seen kii yooyu seetee xool ko dañ ko def directement hôpital mu war a fay ay trois millions et quelque dañ ko faj gratuitement. waaye nag bu fekkee da ngaa bëgg ñaax gone ba pare naa leen Europe moo gën a neex Afrique du sotti de. non man xam nga bu ma nee Europe moo gën a neex Afrique tamit du ma fekk tamit xale yi ñuy foo xamante ne ni dañuy torox mën naa leen toog leen ngeen torox du ma ko def. nan ñu defal loo xamante ne ni xale yi dañ ci gis seen bopp sama wàllu wéy na de dama yor samay doom ñu war a màgg suba tey jii bi may ñëw léegi école dafa tëj ñoom dañu demoon géej di dundal di fa ñoom ñooy joxe dépasse bi may dundee man xam nga ay intellect dañuy jàng ak seeni moroom bugguma ñoom li ma fa ma jaar ñu jaar fa parce que du yoon woo xamante ne yoon wu normal la. jërëjëf Moustapha Diouf président association des jeunes rapatriés de Thiaroye bàyyil jeune nag ndax doonatoo jeune yaa guy gi ah euh, ñu yendoog jàmm Moustapha Diouf euh, euh, président de l' association des jeunes rapatriés de Thiaroye-sur-Mer ñu doon waxtaanee wàllu mbas mi mbas mbëkk mi. di gàllum euh, looco yi gone yi jël dem Espagne yéen doog jàmm mbokk yi El Hadj nga yegsi ci xabaar yi wolof ci gàttal as su mbeen ci geneen wàll gi jëlaat kàddu gi jaa jëf.